moo leen di gunge ci seen émission al iftaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi seetaan seen télévision Al Mouridiyyah amati nañu mbégte di leen nuyu te it di leen ziar di nuyuwaale it ñi nekk ci rajo bi ak ñi nga xam ñu ngi koy eh, dàkk ci réseaux sociaux yi jiital nag ci nuyoo bi ak ci ziar bi suñu sang Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal suñu borom mu guddal fanam waaye mu defal ko ak wér ba naa li nga xam ne sumb na ko ci liggéeyu maam ji Cheikhul Khadim mu yeggale ko ak sagoom te lépp noonu kook moom waaye léppit it noonu kook mboolem njabootuk Serigne Touba gi kenn bañ a wute euh, tey jii di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru may euh, tolloo it ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn muy mille 1441 dañ koy baaxoo di def nag seen émission bi euh, saa bu nekk rek nuy ànd ak borom xam-xam yi nu fas yéene gunge ci buntu yi ngeen xam buntu alxuraanu karim buntu hadis buntu xasida ak xikma dina jaar ci arminat ak ci aju yëpp su ko defee fenn fu nag nekk rek daañu ci jéem a jariñu génn tasaare ci àddina bi yëpp ñaan yàlla suñu borom mu defal nu euh, dégg ak topp ba lépp loo xam ne si jëlee nañ ko fi nu mën a am tawféex tege ci yoon wi daal koy jëfee. tey jii nag euh, ci euh, dibeer ji wala ci dimanche ji Serigne Daouda Pouy moom la ñu fas yéene àndal mooy sunu ganu tey ñu fas yéene seq ak moom waxtaan ci buntu yooyu nga xam ne moom lañu ñu wax léegi. ànd it ak Serigne Alioune Guèye al imam moom it mu fas yéene gunge ci li nga xam ne si moom mooy waxtaan wi. ni nga xam ne noonu la koy defe euh, di ci awante ak Serigne Ahmadou Touré euh, moom tamit ñu koy ziar bu baax a baax imam euh, su ko defee kon ñu daal di rek tàmbale ci sunu gan gi di Serigne Daouda Pouy Serigne Daouda asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah aouzu billah bismillah inna waliyallah aouzu billahi min asheytaani rajim aoudu bi kalimatillahi taamati min shari ma qalaq bismillahi rahmaani rahim bismillahi ma sha la yasuqu alxayra ila bismillahi ma sha allah law yasarifu soa ila allah bismillahi ma sha allah wa ma bikum min ni'matin fa min allah bismillahi ma sha allah la quwwata illa billah alhamdulillahi wa salla abada ala alladhi bihi lana alhuda abada sayyidina muhammadin wal al wa sahbihi zawina walil wal waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi ki nga xam ne moo fi cheikhul xadim moo jiite yoon wi di al muntaqa wal mustafa wal murtada wal muqtama na fi yàgg tewer di ziyaare sama sëriñ cheikh Mouhamed al sise di leen ziyaare sëriñ bi ak al bismillah jërëjëf sëñ Daouda ñu ngi lay santaat bu baax nuyoo bi matale na macha allah ñu ngi lay dalalaat bu baax a baax ci plateau bi euh, sëñ Daouda mu mel ne kon euh, ñu ngi ci buntu bu njëkk bi loo ñu ci indil ci ay aaye fas ñu ko yéene laaj bi waa comme niñ ko waxoon rek incha allah comme ci zikkar maanaam tudd yàlla ndax suñu borom dafa wax ne wala zikrullahi akbar mm-hmm. maanaam tudd yàlla mooy li gën a màgg mooy li gën a màgg mu delluwaat waxaat ci suratul araf ne wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifata wa doon al jëhri min al qawli bil qudwi wal adal wala takun min al ghafilin maanaam yow ci sa ci bopp sa ruux na ngay tudd maanaam yàlla di toroxlu di làq maanaam tudd yàlla gi nga koy nëbbu maanaam bañ koy feeñal waaye nga bañ a nekk koo xam ne da ngay sàggan ci tudd yàlla da ngay sàggan ci tudd yàlla ndax day ëpp def mu delluwaat waxaat ci suratul suratul ahzab mm-hmm. inal muslimina wal muslimat ila qawlihi taala wa zakirina allaha kasira wa zakirat addallahu lahum maxfirata wa ajran azima mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla ci jullit ñi jigéen ñi ak ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla ci ñu góor ñi lu bëree bëri suñu borom préparé na leen maanaam njëggal ak fay goo xam ne gu màgg la lool mm-hmm. mu delluwaat waxaat ne waskurullaha kasiran laalukum tuflixoon na ngeen di tudd yàlla lu bëri ndax maanaam ngeen texe mm-hmm. mu waxaat ne waxaala allahu taala fazkuruni azkurkum maanaam na ngeen may tudd ma leen di fàttaliku mm-hmm. ndax tudd gi ñuy tudd yàlla maanaam ci la ñuy fàttalikoo yàlla mm-hmm. suñ borom tamit ci la ñuy fàttalikoo ndax bu fekkente ne maanaam tudd ñu yàlla yàlla sax du fàtte waaye maanaam mën naa dem ba nga xam ne fàtte fàttalu na mbiri jaam bi te kon loolu day doy waar mu waxaat ne yaa ayyuha alladina amanu zkuru allaha zikran kathiran wa sabihuhu bukratan wa ndax alxuraan saa bu waxee ne yaa ayyuhal na amanu képp kuy ab jullit war ngay taxaw xool lan la ciy teg bu fekkee lu muy aaye la nga bàyyi fekkente ne lu muy digle la nga def mu ne yaa ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kasiraw wa sabixoohu bukratan wa la yéen ñi nga xam ne yenn gëm yàlla day leen tudd yàlla tudd yàlla bu bëri maanaam jamono bu nekk su ngoon guddi ak bëccëg waxaat ne ala bi zikrillahi tatma inul xuloob ci yàlla la xel yi di dalee ci la xel yi di ginde ko maanaam jublu ci saraatal mustaqim sëriñ bi dëgg la jërëjëf sëñ euh, sëñ sëñ sëñ Daawda euh, mhm. li nga indi am na solo trop muy tudd yàlla tudd yàlla rawatina ci koor gi xam naa euh, sama classe gi nga xam ne si jànguñu ñaare day suñu waxee tudd yàlla rek wala ñu ne julli ci yonent bi ndax dafa am benn bi suñuy def émission di ko def ci salaatu ala nabi ñu génn am kuy laaj Serigne Saliou la ne ko man de su muy suñuy julli julli ci yonent bi rek dama naan julli naa ci yonent bi julli naa ci yonent bi maanaam moom xamul nan la ñuy jullee ci yonte bi moo tax naan julli naa ci yonte bi julli naa ci yonte bi euh, mooy fàttali it keneen loo xam ne daanaka mën nañ dañ koy nettali rek mu mel ne lépp euh, waa joo xam ne da da <laughs> di daanu suuf bi mu ñu naan ko tuddal yàlla mu naan nu mu tudd nu mu tudd nu mu tudd <laughs> waaw euh, tudd yàlla day mel ne lu yaatu la nan la ñuy tuddee yàlla waaw alhamdulilah ala kulli xaal sëriñ bi mm-hmm. comme li nga wax rek tudd yàlla gi yaatu na mën naa nekk ci alxuraan saxoo di jàng alxuraan mën naa nekk ci tudd zikkar maanaam ismullah maanaam turu yàlla naa nekk ba léegi tamit ci xasida yi yàlla lay doon d'accord maanaam day tudd yàlla mooy fàttaliku yàlla rek mooy fàttaliku yàlla mooy fàttaliku yàlla mooy fàttaliku yàlla d'accord d'accord est-ce que tamit le fait maanaam ñoo xam ne dañuy jël benn turu yàlla benn ci turu suñu borom nga xam ne bari na lool 99 ci liñ ci xam juróom-ñeent Eh, nga saxoo ko di ko wér rek yu demee noonu loolu day dugg ci tudd yàlla wala. da ciy dugg alors day dugg ci tudd yàlla. d' accord d' accord d' d' accord lu mel ne aussi euh, lu ñuy def muy euh, baaxiyaatu saalihaat moom tamit da ciy dugg. d' accord d' accord baaxiyaatu saalihaat mhm. bismillah lépp day dugg ci tudd yàlla. mais bu ñu nee salaatu ala nabi moom du tudd yàlla. Mhm. voilà salaatu ala nabi ba léegi maanaam ci zikkar la. ci zikar la bokk ci zikar lay dugg insha allah ndax am na bu ñu ciy indi maanaam sëriñ bi ku tedd ki mhm. indi na ko ci masalik mhm. insha allah bu duggee ci ku tedd ki li ci wax lu tax mu ne wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifatan wa mhm. lay bëgg a wax ndax boo demee ci sëriñ bi ci masaalikul jinnaan maanaam indi na ci ak leeral ci maanaam di ko yellu ak biral gi dox maanaam indi na ci ak leeral ndax maanaam nga tudd yàlla te nga yellu ko mhm. maanaam nga nëbb ko maanaam ci lay gën a soree jëf ji maanaam du nekk jëfe sal daal léegi bu fekkente ne xëy na dafa feeñ nga biral ko xëy na mën naa nekk ngistal mhm. waaye comme boo demee ci Masaalikul naan sëriñ bi leeral na ko ci ay kii ba mu gën leer ay anam d'accord incha allah d'accord bu ñu ñëwoon nag les mérites maanaam euh, tudd yàlla lan la mën a jural jullit lan ko mën a jural maanaam mboolem yiwu àdduna ak yéen man de àdduna ak àllaaxira mhm. tudd yàlla maanaam mën na koo jural jullit bi mhm. bu ko defee te teewlu ko te sellal ko mhm. mboolem luy àdduna ak maanaam tudd yàlla mën na koo jural jullit bi incha allah d' accord d' jërëjëf jërëjëf sëñ Daouda ñu ngi lay santaat bu baax a baax a baax euh, imaam mu indi thème boo xam ne si thème bu bu bu am am am solo la muy loo xam ne lu war a sax ci làmmiñu jullit bu nekk la muy tudd yàlla ak di ko fàttaliku ndax jëmm la joo xam ne si boo ko dee fàttaliku rek mooy mu di la fàttaliku te bu la fàttalikoo rek say mbir dana baax fii ak fa nu jëm mu mel ne kon kenn ku nekk war na si bàyyi xel bu baax baax te it boo xoolee ci alxuraan fu mel ni euh, lim ci lim ci ay aaya rek euh, euh, doy na ci sëkk ci firnde ci ne suñ borom toujours mu ñuy fàttali ne dee leen ma fàttaliku ndax mooy tax ma di leen fàttaliku. dëgg la tomb bu am solo la ndax tudd yàlla moom dara màgg sëñ Daawda Ndaw wax na ko ci tàmbali bi ci wala zikrullahi akbaru kon tudd yàlla moo gën a màgg lépp tudd yàlla yitam saa boo ko waxee day am ci lu muy tegu loo xam ne mooy e, ndax nit ki day fàttaliku yàlla tudd yàlla te fu mu fàttalikoo yàlla tudd yàlla itam xelam dina dem ci lu mu borom mm-hmm. xam ni da sant wala da ko war a jéggulu wala ñaan wala lu mën a doon rek tudd yàlla gi moom faw ko def ku nekk dina am ci sa xol lu mu gën a la nga jëm waaye li ñuy tàmbalee ma mooy li mu ni tudd yàlla moo gën a màgg wala zikrullahi akbar waaye tudd yàlla nag bi mu doonee lu gën a ba noppi aay bii mu indi dañoo jox ndigal ci ñu tudd yàlla mm-hmm. ndax wazkur rabbaka loolu ma sama amra la ndigal la kon bi mu joxee ndigal nit ñi nu nga tudd sa borom day mel dañoo dimbali daañu xamal itam ni ñu bu ngeen ko tuddee nii moo ca gën mm-hmm. waaye itam dafa mel dañoo dimbali tam mm-hmm. xamal ñu tudd ñu ay waxtu waaye waxtu yooyu ñu tuddoo sax mooy wud wala asal borom xam-xam yi dañuy wax ni mi mel ni ku naan la dee def nangam guddi bëccëg d'accord kon wudu asal ma nga nga wax suba ak ngoon moom mel ne kon nga naa ko def waxtu suba mm-hmm. naa ko def waxtu ngoon waaye am ñu gën a matale yoo xam ne la da ko def suba ngoon nga xam ne loolu bari da ci jublu mm-hmm. te ci biir euh, defen wi mm-hmm. bi la waxee ni la wazkur rabbaka fii nafsika kon na nga tudd yàlla fii nafsika yi ñu xam le ni ci sër lañ ci jublu waaye liñ ci gën a jublu mooy ngir yow sa bopp nga ciy xalam mm-hmm. di ci xalaat ngir mu dugg la mm-hmm. nga xam ne loolu moom li nga siq tudd yàlla gi la nga xam ne boo koy tudd ci yàlla wi mm-hmm. mu doon loo xam ne kon dalay dugg doon loo xam ne da nga koy xalam ànd ak ak teewlu tey bu ñu jëloon rek benn tur par hasard yaa nu ci nit ki mën a xalam yaa loolu moom baatu arab boo xam ni sunu borom mi nga xam ne moom mooy ubbil ko ko soob di aji ubbee ji d'accord loolu da nga woo ci tur ah. te loolu li ci ëpp ñi ñaan suñu borom di ko ñaan lañ koy ñaan ñu teg ñu koy wooye tur woo xam ne dëppoo nag lañ koy ñaan mm. moo tax ñuy wax yaa fa di di ñaan ak ubbi d'accord di wax yaa latif di ñaan mhm. sama borom mu jëf leen ñu am ci ak ñeewante mhm. di wax yaa rahim di wax ngir eh, suñu borom yëmban ak yi ñu sàkk ci moom mhm. di wax yaa wahab ngir may yi ñu sàkk ci moom kon loolu ay turu suñu borom la kon turu suñu borom itam eh, dañoo taamu eh, ñi xam dañoo taamu loolu mooy sa lu ñaan suñu borom ne di xool bunt ba nga xam ne moo dëpp ak moom ci turam yi ñu koy wocc loolu te ci biir loolu itam biñ ne nanga tudd sa borom ci sa bopp waaye na nga bàyyi xel lii mu wax hmm. tadarruan wa xafiyatan hmm. di ko def ci mokk mokklu hmm. di ko def ci toroxlu di ko defee di yëg ak ragal boo xam ne moom ngay ragal sa borom kon eh, loolu fii nafs gi dafa ànd ak loolu lépp waaye tam bi mu ñëwee ba ci duunal jëhri min al qawli kon wa duunal jëhri min kon loolu dañ ni eh, dina ëpp yàlla waaye yées biral loolu lañ cay jàngale wax nañ sax ci ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas ñëw fekk Seydina Omar mm-hmm. mm-hmm. yàlla waaye mu koy def nu dëppoog natiram mm-hmm. mooy mu tudd yàlla ci kaw nee na bi ko yonent saatam gisee da ko laaj bi mu ko laajee lu mu jullu mu ne ko uuqidul wasnaan wa atrul sheytaan mu ne ko bire gi ma koy biral nii di wax ci kaw nii day dàq sama ngëmbentu waaw dama dimbali ba du ma gëmmentu mm-hmm. waaye itam dama ci dàq seytaane mm-hmm. ba ma waxee loolu sa sansan ne ko axfid min sawtika qalilan ni ko wàccee sa kàddu tuuti mu gën a diggu dóom mm-hmm. waaye itam neenañ ba mu ci jógee dem na ci Seydina Aboubacar radiyallahu anhu fekk ko muy tudd yàlla waaye ba muy tudd yàlla moom itam day tudd yàlla ci ci nattiram lu dëpp nattiram d'accord ko dafa yàllu yeneen bi sallallahu alayhi ko da koo laaj ni ko laaj ko lu mu jublu ci ni mu koy defee noonu mhm. mu ni ko ki may diyaale ma sam borom mhm. maa ngi koy dégtal li may wax waaw suñu borom moom mhm. soo waxee ci kaw ma ngi lay dégg boo ma ngi lay dégg mu ni ko ki may diyaale ma sama borom li may wax maa koy dégtal ndax mi ngi koy dégg yeneen bi ni ko irfa min sawtika xalilan ni ko yëkkati sa kàddu sotti kon bu mel ne kon digg doomu gi lañu euh, gën a taamu d'accord ndax soo digg doomu bañ ne yàlla bi dina la tax dina la dimbali ci nga gën a mën a waaye itam ni ko sëñ puy waxee dina la soril ngistal waaye itam dina la may nga ànd ak dal waaye nag soo yëkkati sa kàddu tuuti mhm. yool bi day am ci nu muy dolli koo ndax jëf yi ko eh, jëf ji nga doon jëf mhm. cër yi doon jàpp ci jëf ji soo yëkkati sa kàddu day gën a eh, bari kon day mel ni effort bi ngay def ci boo yëkkati sa kàddu di ëpp bi ngay def boo yelu waaye itam say nopp yi koy digg dégg tam di am beneen tiyaaba bu jum lay jural waaye itam ñeneen ñi lay dégg itam tiyaaba ji toll ni ji ci am yow mi wax ñoom itam dañu am yool bu toll noonu kon moo tax ba ñu bëgg nga ba nga ko waaye itam euh, digg doome gi day am lu muy jur moo tax kon loolu suñu borom moom moo ko jàngalee fii. dëgg la kon. Hmm. Euh, leeral na ni nga ko biiral. Mhm. waaye dafa leeral ci biir ni kon. Mhm. na nekk diggante yalu. d'accord ak biral mhm. te loolu di loo xam ne kon euh, jàngale boo am am solo da ci nekk ci biir. Euh, diggante boobu. d'accord d'accord mu mu jeexale wala takkun minal xaafilin kon day mel ne ku dul ku yàlla rek da ngaa sàggal. <laughs> bu wér wala takkun minal <laughs> kon loolu moo la ko mottalee. ni bul nekk ci way sàggan yi. way sàggan yan mooy way sàggan yi sàggane tudd yàlla. ndax yàlla suñu borom. Ah. képp ku sàggane tudd ko ku nekk. d'accord ku sàggan la. waaye itam sàggante boogee ñu xam ni seytaane moo koy def. Mhm. ci doomu aadama bi. Mhm. ndax suñu borom. Mhm. mi nga xam ni. sa lépp ci moom la aju. sag nekk ci moom la aju. ni nga mel ci moom la aju. li ngay am. ci moom la aju. sa ndimbal lépp ci moom la aju. kon nan la ko nit mën a fàttee mhm. kon koo fàtte ku nekk mhm. dafa tàbbi ci biir mhm. way sàggani te euh, tudd yàlla gi itam sëñ ci lu am solo ci wane ni lépp luy rek tudd yàlla gañ ko mën a jural te boobu tey ma ngaa jël ci wenn bay boo xam ne xam naa incha allah dina ci ñëw ci amma daamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana muridu yuksiru kon sëñ bi ma xam ne loolu ñu tudd yàlla rawatina saxal ko. Mhm. nee na moom moo gën lépp loo xam ni am murit di ko dina ko saxal. d' accord da nga da nga cee tudd da nga cee solo muy saxal ko. da mhm. gis koo xam ne si xëy na day nekk ci ay jafe-jafe wala ci ay xat-xat. Mhm. Mm, jékki-jékki rek jël benn tur di ko wér. gaa yi nag razaaxu lañ gën a yàpp moom daal di jël euh, euh, razaaxu par exemple di ko wér di ko wér di ko wér di ko wér di ko waaye day mel day xëcc xëcc xëcc xëcc alal bu tëy ñëw day jékki-jékki bàyyi ko daal di changé jël beneen mu mel ne loolu tamit gënul ci Euh, lu mel ne lu mel ne si kar ak yu demee noonu. la ah. euh, ci biir loolu. liñ ci xamee mooy euh, tudd yàlla. Mm-hmm. doon loo xam ni yiwi àdduna ak àllaaxira mm-hmm. Mm-hmm. jii ni mu loo xam ni yiw yi dafa bari ci àllaaxira sa àdduna la ci mën a jage. d'accord tey itam noonu la mën a mësulee ci seetaane. te loolu tey boo xoolee lu mel ni. li nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. da ko wax benn saxaaba ngir rek xamal ko mhm. li nga xam ne moom mooy la nekk ci tudd yàlla mhm. ci njëriñ yoo xam ne yëmul ci njëriñu alaxira waaye da cee mën a jëriñoo njëriñu àdduna ndax dafa am ku ma sa ñëw di ko jàmbat fu jamono toll ci moom mu dis ci moom lool mel daal ak ñàkk sonal na ko waxee loolu yonent bi sallallahu ni ko waa yow ana foo nekk ak lii fi nekk mooy julli malaaka yi ak sabbaalu doonu aadama yi ana foo nekk hmm. nga xam dafa ñëw di ko man daal fi ñu doon damaa ñàkk lool fi ñu doon nekk jafe-jafe coono bari na yooyu hmm. yéen mu mel ni ku ko ne ko yow xanaa yëgoo li xew hmm. ba mu ko ne tudd yàlla eh, gan la yenn saa da ko wax ni ko subhanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazimi astaghfirullah ni ko istaghfirullah miata maratin maa bayna tuluu'il fajri ila an tusalliya salaatal ghadaa mu ne taatika dunya saaghiratan raaghima yonent bi ne ko tudd yàlla gii nga xam ne moom mooy julli gi malaaka yi waaye di sabbaalu ko mbindeef yi muy subhaanallahi wa bihamdihi ak subhaanallahi alazim bi mu wax ni ko da nga koy def te jéggalu yàlla téeméer yoon. Mhm. bu fajar gi fenkee bu fajar mhm. xare. lu jiit ñu julli suba. Mhm. mu ne ko boo ko defee. adduna ci boppam. mooy wommatu. fekk si la. ci ci misaal mu mel ni euh, maam la lu day doon lu yomb ci yow. waaw waaw léppay ubbeeku daal. waaw àdduna mm. dañu ñëw mu neex ko mu naqari ko. dina la wuyu. Mm. kon loolu ni nga xamee kon tuuti yàlla gi. jege yàlla tax nga koy def dëgg la waaye itam ki xaj ëllëg tax nga ko ëllëg nga koy def dëgg la waaye nag dafa doon loo xam ni mhm. day lépp lu doomu aadama xamee ci àdduna mhm. ci fànn ba mën doon mhm. tudd yàlla googu mën na ko womatal bu dee xeeti wërsëg mën na ko womatal su dee mucc ay balaa mën na ko cee dimbali su fekkee ni mucc seytaane la mën na ko cee dimbali bépp xeetu lu doomu aadama bëgg mucc ci àdduna rek am na xeet tudd yàlla yu ko ci mën a mosal d'accord waaye itam lu mu bëgg di ko wamat ci àdduna mhm. am na tudd yàlla yu ko mën a ñoddil lu bokkut ak nag yool bi nga xam ne loolu rek tax tudd yàlla jox mu yool ëllëg d'accord ma ngoog ñuy jaajëfal bu baax a baax kon Serigne Daouda Pouy mii nekk suñu gënu tey ak euh, ay alxuraan yu am solo yu nga xam ne moom la ñu indil jaa ziar yu bu baax wala na euh, santaat bu baax it sëriñ Alioune Guèye ci euh, taarixaat yi nga xam ne si euh, dolli na ko ci muy kàddu yu rafet yooyu ak leeral su ko defee kon nu ànd ak waa régie dugg ci ñaareelu buntu bi muy xadisu bés bi ok sëñ Daawda ban xadis nga ñu fas yéene laa biir tey. ok sëriñ bi ba léegi. li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis xadis boo xam ne dañ koo solo ci abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kalimataani xafifataani ala lisaan saqilataani fi lmisaan xafifataani xabibataani ila rahman xabibataani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim jël nañ ci abi hurayra mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñaari baat ngi nii yu oyof ci làmmiñ mhm. te diis lool ci balance yi nga xam ne ci la ñuy peesee jëfi doomu aadama yi ëllëg yawmal xiyaam muy ñaari baat yoo xam ne dañ koo sopp ci yàlla muy subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al-aziim muttafaqun alayhi kon loolu day tegtale ne zikkar am na solo ndax oyof gi mu oyof ci làmmiñ ak diis gi mu diis ci balance yi mhm. ak sopp gi ñu ko sopp ci suñ borom mm-hmm. mooy wane ne maanaam zikkar am na solo mm-hmm, mm-hmm. yeneen bi ñu ñu jëlawaat ci wa an Saad ibn Abi Waqas radiallahu anhu mu wax ne kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal a yajizu ahadukum an yakasibu fi kulli yawmin an yakasiba fi kulli yawmin alfa xasanatin fa saalahu saayilum min julasaayihi fa kayfa yakasibu ahaduna alfa xasanatin qaal yusabbihu mi'ata tasbiha fa yuktabu lahu alfa xasana mhm. aw yu xattu anhu alfa xatia yeneen bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne maanaam Saadu ibnu Waqaas dafa wax ne dafa am benn bés boo xam ne dañoo toog ci yonent bi mhm. yonent bi daal di wax ne ndax kenn ci yeen lot na ci mu fàggu junniy mbir yu rafet mhm. bés bu nekk kenn si gaa yi toogoon laaj ko ne ko yonent bi nan la ñuy sàkkoo junniy mbir yu rafet ci bés bi kenn ci ñun naka lay mën a fàggoo loolu yonent bi ne ko mooy nga sàbbaal suñu boroom junni maanaam téeméer yoon nee boo ko defee dinañ la bindal junni maanaam mbir yu rafet mhm. maanaam dinañ la dindil mhm. junni ñaawteef maanaam dinañ la jéggal biñu junni bàkkaar mhm. ñu solowaat ci waan abi waan abi musa al ashari radiallahu anhu an nabii salallahu alayhi wa sallam mu wax ne masalu alladi yazkuru rabbahu waladi laa yazkuru rabbahu masalul xay wal mayit misaalam ki nga xam ne day tudd yàlla ak misaalam ki nga xam ne du tudd yàlla dafay mel ni maanaam dund ak dee te mbokk yi bu ñu xoolee xam ne diggante dund ak dee sore na mhm. te maanaam wutee na lool mhm. kon loolu ba léegi dafay jàngale ne maanaam tudd yàlla rëy na mhm. ndax dund ak dee wutee na léegi ñaar ñi nga xam ne kii dafay tudd yàlla kii du tudd yàlla maanaam ñoom ñaar ñoom la ñuy wutee ba léegi muslim mu nettalewaat ku mu ne kër gi nga xam ne dañ fay tudd yàlla ak kër gi nga xam ne maanaam duñ fa tudd yàlla ba léegi dafay mel ni misaalum dund ak dee maanaam dund ak dee ni ñuy wutee mhm. maanaam kër ñaari kër yooyu noonu la ñuy wutee mhm. kon ba léegi may xamle ne maanaam tudd yàlla mhm. rëy na rëy goo xamante nii li mu nekk ci moom bokkal ak li mu nekkul ci moom. d' accord d' d' tudd nga fi léegi euh, sàbbaal ko xam dafay sàbbaal suñu borom lu ma téeméer yoon wala junni yoon euh, euh, naka la ñuy sàbbaale suñu borom pour ñi nga xam ne si sama classe nga xam ne si xay na seen allo soriwul. waaw sabxaal gi sabbaal gi maanaam mën naa nekk. comme subhanallah alhamdulillah astaxfirullah allahu akbar mhm. comme ni ko sëriñ bi waxee ci masaalikul jinaan d'accord d'accord waaw yooyu yëpp maanaam day dugg ci biir mhm. ci biir ma ci biir maanaam sàbbaal gi nga xam ne moom la ñuy sàbbaal d'accord suñu borom d'accord su ma liggéeyatee day mel ne maanaam euh, jullit war nay tàmmal làmmiñam lu baax wax surtout wax ju baax ndax am na ñoo xam ne tey foo leen fekk ñu ngi mënu mënum di wax di di wax di déy yoo xam ne ñuy wax lu mu doon mhm. fekk na amaana la ñuy wax Euh, ay ay ay ay ay ay ay ay sikkar lay doon wala mhm. ay sàbbaal lay doon yoo xam ne si ñu ngi sàbbaal seen borom wala ñu ngi koy tudd wala ñu ngi koy fàttaliku amaana am na keneen koo xam ne si moom it mhm. euh, su yàlla dogalee mu mu mu mu nekk ci xat-xat wala mu am ay tuuti jafe-jafe mhm. dana wax wax joo xam ne si léeg-léeg du doon wax ju baax wala wax xam ne si waxu càggante lay doon loolu tamit dafay mel ne moom it dafay dellu suwaat waat rek ci nit ki di tàmmal làmmiñam wax ju baax ok sëriñ bi loolu sëriñ bi wax nañu ko ci nax nee doomu aadama bu nekk li nga tàmmal sa làmmiñ moom lay baaxoo kon na nga fexee ba nga tàmmal sa làmmiñ mm-hmm. wax ju baax mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wax na ci xadis mu ne mm-hmm. na nga fexee ba sa làmmiñ muy tooy ci di tudd yàlla maanaam nga saxoo di farataal di tudd yàlla lu bëree bëri xëy na moo gën leneen loo xamante ne ab safaan la incha allah d' accord d' accord mu ngoog mu ngoog kon sabal ak ak ak ak ak ay takbiir ak ay yooyu yëpp daf ci daf ciy dugg ay tahlil yooyu yëpp daf ciy dugg mu indiwaat tamit ne ki nga xam ni kër goo xam ne si dañu fay tudd yàlla du yem mukk ak kër goo xam ne desu fa tudd yàlla kuy tudd yàlla ak ku dul tudd yàlla ku dul tamit ñoom ñaar duñu duñu duñu duñu mas a moo ne léeg-léeg da ngay gis ñaar ñoo xam ne si daanaka ñu dañ naan ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañu waaye kii ni muy saxale boppam ci tudd yàlla ak di jàng alxuraan ak di ko fàttali ko gi demee noonu kee du ko defee noonu maanaam moom yitteem yëpp mooy mbiri àdduna ak nu muy fexe ba am koom wala nu muy fexe ba am ay koppar ak yu demee nag moom yitteem yëpp moom mooy euh, làmmiñam na ci fexe di ci def lu baax di ci wax lu baax waaye nay fexe tamit ba fu mu toll di jàng alxuraan yu tamit te ñaare du ko yàqal sax ci wutum koom ak yu demee noonu mel na kon euh, lu nit ki di adapté ci boppam la rek. maanaam comportement la boo xam ne yaa koy adapté sa bopp rek fexe ba nga xam ne si yow sa mbiri àdduna ak su sa sa sa sa digganteeg sa borom. du yàqu maanaam sa mbiri àdduna du yàq sa digganteeg sa borom laa bëgg a wax sa digganteeg sa borom it du la jël de trop ba nga xam ne li nga war a def ci àdduna doo ko doo ko doo ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. ok sëriñ bi ala kulli xaal mm-hmm. jullit bu nekk. Mm. ndax sëriñ bi ko tedd ki jàng. la mm. daan diggale ak liggéey. Mm-hmm. ak jaamu yàlla. waaw te dañuy bëgg maanaam jullit bi. mu taxaw ci ay jaamu yàlla am. Mm-hmm. li nga xam ne war na ko digganteem ak yàlla. Mm-hmm. mu taxaw si. dara bu manqué. d'accord waaye dañuy bëgg tamit lépp loo xam ne liggéeyam la. mu taxaw si. mu boole liggéey ak jaamu yàlla. ñoom ñaar yëpp tolloo. ñaar yëpp di dem. ndax yonent bi wax na ne. loxo bi nga xamante ne maanaam moo joxe. Mhm. mooy joxe moo feete kaw. Mhm. moo gën loxo bi nga xam ne moo feete suuf moom mooy mhm. laaj. te ku liggéeyul xëy na doo mën di joxe. doo mën di joxe kon doo bokk ci gaa yu baax yi. kon boole liggéey ak jaamu yàlla. mooy liggéeyam. dëgg la dëgg la incha allah ma ngoog jërëjëf sëñ Daawda Buy ñu ngi koy santaat bu baax a baax. kalimataani xafifataani fi lisaani wa saqi saqilataani fil mizan mm. mu ngoog ñaari baat la yoo xam ne si yomb yomb yomb la waaye dafa mel ne léeg-léeg wax waxi kasaw kasaw wala wax joo xam ne si duñ jural dara ci suñu àdduna war ba mu jeex mënu gënal di wax ñaari yi mm-hmm. euh, nga xam ne moo ko doon wax léegi uh-huh. xam nga euh, tudd yàlla yi nga xam ne moom mooy yi am mm-hmm. rawatina yoo xam ne nga ko fekk mm-hmm. loolu ni muy dimbalee dañuy yóbbu foo xam ne ñun suñu xam-xam yëgu fa ak foo xam ne suñu jiite yëgu fa ndax ji boo xooloon mel ni subhaanallaahi nga la mm-hmm. waaye li mu dafa bari mm-hmm. ndax nee nga maa ngi setal yàlla ci lépp dañ ko koy melal doon lim yooyu tey mm-hmm. ndax man nga koo jeexal ni nit ñaa ngi jàppee nangam yàlla te yàlla doon loolu ni ne yàlla am na nangam te yàlla am ko ni ne yàlla ngi def nangam te yàlla def ko boo ne subhanallah loolu lépp lu nit di melal yàlla wala bu koy wax di ko jëme ci yàlla démóor noonu ne nga man seetal naa yàlla ci loola comme moo tax xeeti tasbih yooyu tey mu doon yenn baat yoo xam ni li muy jur ci ay tiyaaba day bari hmm. ci biir loolu itam ni mu ko indee kon xaj bu am ku ko dégg ku nekk war ngaa gën a farluwaat ndax ni ko yeneen sansam waxee ñaari baat yoo xam ne dañoo woyof lool toll ci làmmiñ mën naa am boo koy wax sax doo ñaq ah, mën naa am benn coono du ko jural waaye boo demee sa balance ëllëg nag mhm. mu diis gan ba mën a wat yu bëree bëri yoo xam ni mhm. defoon nga ko ci ab safaan dëgg la kon moo tax ba baat yooyu dañ ko war a fonk mhm. boo xoolee sëñ Saliou Mbacké ci jàngaleem daana wax lu mel noonu ni tey la ilaha illallah mm-hmm. moo gën a woyof waaye maanaam ci jëf gi mm-hmm. waaye léegi nit ñaa ngi ko fi bàyyee dem di te bëgg dal kon dem di te bëgg dal boo xam ne yow mën nga caa ñàkk mën nga caa sonn waaye te doo ci am yàlla te am <laughs> mën na am sax mu am ca ab sabaan waaye laa ilaha illallah tudd yàlla ñu mm-hmm. noppalee te ñun la laa ilaha illallah muhammadu rasulullah njëbu àjjana la kon moo tax tomb tudd yàlla bi doon bu am solo kon mu nekk ñaari baat yoo xam ne dañoo diis gan na ci balance kon mu tudd ko léegi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi ak subhanallahi alazim loolu euh, di nga ci gis li nga xam ne yonent bi tam wax na ko ci beneen xadis loo xam ne day gën a firndeel li nga xam ne moom mooy euh, ngëneelu tudd yàlla ndax am na ci boo xam ni yenn bi santam dafa wax loo xam ne dañuy wax ni euh, ku ñuy wax Seydina Xaalid ibnu Omar ibnu Imran moom moo wax ni yenn santam dafa wax benn bi laa ni xuzu junnatukum jël leen seen i pakk bi may jël leen seen i pakk ñeneen ñun ñu koy dégg mhm. ñu daan ne ko ah, suñu pakk yi yor bu ñuy jàkkaarloog suñu noonu. bu suñu noonu teewee ngay wax. mu leen déedéet. pakk yi leen di fegal sawara laay wax. Mm-hmm. bañ ne ko mooy yan yéen a ni leen subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim ni leen yi ma wax fa innahunna yaatina yawma alqiyama muqaddimatin wa mujannibaatin wa muaqibatin subhanallah walhamdulillah mm-hmm. wala ilaha illallah mm-hmm. wallahu akbar mm-hmm. wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim xam nga tey boo waxandoo noonu tey ki ko minute mën naa jàpp ni lu mu war a ma ko lu jafe la te fekk subhanallah moom mi ngi koy wax lu bari alhamdulillah mi ngi koy wax lu bari la ilaha illallah mi ngi koy wax lu bari allahu akbar mi ngi koy wax lu bari la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mi ngi koy wax lu bari kon su leen dajalee yeneen mi ni leen lii ay pakk la yu leen di fegal sawara ñu ne bu ëllëgee bis penc dañuy ñëw bu ñu ñëwee la ñuy def mooy dañu leen di jiital àjjana mm. di fegal sawara mm. di leen wattu di leen oh. kon mm. loolu nga mën cee diggawaat yenn ci ngëne li nga xam ne nekk na ci mm-hmm. tudd yàlla ci ni nga xam ne noonu la ko euh, sëñ euh, Daawud Ndaw mm-hmm. indi léegi mm-hmm. te li ñu doon wax léegi ci wane ni euh, moom tudd yàlla boobee kon kenn ci kuy tudd yàlla naat tëbliwut ni ngëneeli tudd euh, yàlla mhm. alaaxira la ëppee njariñ d'accord ah, waaw waaye nan la ci àdduna mhm. ci loolu la musal ak ci loolu aar ak ci loolu la ñoo li nga li soxla waaye bala ñoo yegg ci loolu li may euh, wax ci tudd yàlla gi rek mhm. xam nga ñu waxee tudd dañuy wax ne tudd la uh-huh. damaa mas a am benn julli ajjuma goo xam ni euh, sëñ Muntaxa Jasara moo doon bayaan bi waaye tom boobu dama caa bàyyi xel mooy mu ni nit ñi bu ñu jaawale jëfi làmmiñ ak jëfi xel mm-hmm. xam nga tey li ngay tudd yàlla rawatina boo ko ci ay lim yu bëree bëree bëri uh-huh. mooy misaal ci kuy wax subhanallah nga xam ne baat bi leer la nga wax subhanallah subhanallah subhanallah mm-hmm. muy jëfi làmmiñ nga dem ba mujj bàyyi jëfi làmmiñ boobu di ko jëfi jëfi uh-huh. mooy da dem ba tey li ngay wax muy sujjee bin subhanallah nga xam te mën nga ba nga xam ne yow sam xel moo ca nekk di ci liggéey lu mat waaye laa ma ñu moom liggéeyatu ci lu mat mm. te tey tudd yàlla gi ngay tudd yàlla cër bu ci bokk bu nekk bu joxee wàllam dafa am tiyaay bay boppam d'accord xam nga tey bu ñu waxee zikr bokk sa fikr zikr waaw fikr moom mooy toog di xalam yàlla d'accord d'accord kon loolu jëfe xel la mm-hmm. zikr kon xel mi da cee ba bay lamañ di ko tudd mm-hmm. soo koy tudd ci lamañ wi kon ñaar tiyaay baa xel mu day am tiyaabaam waaw waaye xel moom moo ci ëpp solo moom moo ci ëpp solo ndax teewlu ah, xel ma ci ëpp waaw moo ci ëpp su ko defee di wax hmm. am ci tiyaabay boppam d'accord soo ko biralee ñun la nopp yi koy dégg am ci booy boppam hmm. su doon li ngay tudd yàlla ab téere boo yor la hmm. yor gi nga say loxo nii wala teg nga ko teg say lupp am ci ay tiyaabay boppam sa yi koy xool am ci tiyaabay boppam kon tudd yàlla noonu la yiw yi di xaajaloo waaye itam noonu la yiw yi di doole ko waaye ci biir li ñu waxoon léegi ni yiw bi àllaaxira la mhm. waaye gis nañ fi koo xam ni ba mu dikkee ci yoonu sansam di euh, gaaral jafe-jafe jamono mhm. yeneen ne ko foo nekk mhm. ba jëfewoo lii ci ni nga ko mën a dégg mu xam ne ko ne subhanallaahi wa bihamdihi subhanallaahi azim ak jiggulu yàlla mu def ko téeméer yoon diggante bu fajar gi ba bu ñuy julli suba mu xamal ko ni kon àdduna ci boobu moo lay wuyu si mhm. loolu dañoo wax ni yonent bi sallallahu alayhi man asbaha wa qaala bismillahi alladi laa yudurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim ku ko wax ñetti yoon mhm. loolu dañuy eh, ki ko nettali mooy Abaan ibnu Usmaan mhm. ku Abaan ibnu Usmaan moo nettali loolu daal ni yonent bi sallallahu dafa wax ni képp ku wax kon moom fi mu ko jëlee ba nekk ci yonante bi ñu yonante bi dafa wax ni mhm. képp du wax ni ku wax ni ku xëy suba wax ni euh, bismillahi alladi laa yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama woo samiu alim mhm. ku xëy wax ko ñetti yoon mhm. nee na ba jant bi so benn balaa du dal sa kaw ku ko wax guddi ba bët di set benn balaa du dal sa kaw kon wax nañu fee tiyaaba yi la tudd yàlla di jural wax la fii ni la dalay xëccal àdduna te da ngay àdduna mm-hmm. wax la fii ni la dalay musal ci ay balaa dëgg la dëgg wax nañu sax ni bi mu ko nettalee yàlla dogal ne moom am lu ko dal bi ñuy wax ni ay xeeti paralysé mm-hmm. boo ko dal ba mu ko dalee ñoom ko nettali woon ni ko waa yow ah nga ni woon yonent bi nee na ko wax balaa du ko du la dal noonu la moom mm-hmm. mun leen mu giñaat daan na yeneen bi nga wax wax dëgg la. Mhm. daan ne bi ma yàlla na teg natt bii. Mhm. dafa dogal ma fàttee wax loola. nga xam ne kon dafa toog ab biir. Mhm. fàttee wax loola moom moo leen wax nii leen bi ma yàlla na teg bi ma yàlla namee teg natt bii. damaa fàtte la woo lii nga xam ne. Ah, mooy la ma cee aar. dëgg la dëgg la ci wér. kon gis nañ ni. Ah. suñu borom lu mu nama ci doomu aadama bi. dara mënu ko waaye gis nañ luy gën a wéral ni. ñaan yi wax ni ku ko def mu ci bala ku ko def mucc ci balaa ñaan yi ñu wax ni ku ko def mu ñëdd la ay xéewal ku ko def mu ñëdd la ay xéewal waaye itam yi ñu wax ni ku ko def ku nekk suñu borom euh, faggul la euh, cëral la ay tiyaaba yu kawe ëllëg mm-hmm. ku ko def suñu borom mm-hmm. cëral la ay tiyaaba yu kawe ëllëg te tudd yàlla googu itam mm-hmm. euh, sëriñ sëñ daaw ndaw léegi mi ngi doon tudd ci tudd yàlla gi di ay xeet yu bari la yoo xam ne mën nañ koo Euh, jëfandikoo bari ci tudd xaside yi mhm. te loolu sëriñ bi moom moom moo xamle ni mbootum tudd yàlla sunu borom da koo def ci xaside yi mhm. kon mhm. la mooy ilaa tawaali fii yaquudullaahu asraara laa ilaha illallah ndax tudd yàlla moom laa ilaha illallah moo ci gën a màgg waaye laa ilaha illallah bi nga xam ne moo gën a màgg ci tudd yàlla gi sëriñ bi xam la ne mbootum tudd yàlla googee borom def na ko ci xaside yi waaye ci biir def gi mu def ci xaside dina ci indi misaal. Mhm. ci loo xam ne mën na koo jur. ci yi nga xam ne mën na koo jur. Mhm. dina la dàqal seytaane. waaye itam lu bokk te dàqal seytaane gi mhm. mën na laa defal ay tiyaaba mën na laa ñuddil ay xéwal àdduna ndax tamit dafa haraba min kitaabatil magruuru wali nabi yanxu biha suruur nee sama mbind mi day dawloo iblis kon fu xas day jibe mm-hmm. iblis day daw mm-hmm. waaye itam mu xam la ne euh, sama mbind day def am mbég ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kon xam nga ne luy dàq seytaane tey bégloo rasulullahi màgg waaye yemu loolu mu ne kitaabati naabat anil amali alsaalihaati lintaxat amali mu ne sama mbind mi dina dafa wuutu mboolem jëf yu kon mboolem jëf bu baax boo dégg ñaan dafa bokk ci ah, amal saaliha la mm-hmm. daa bokk ci amal saaliha yi sëñ bi sama mbind mi wuut na ko mooy ah kitaabat yi naabat ani amali asalihat yi lin mm-hmm. taxat amali ah waaye itam ñu daalelee ci li ni mm-hmm. lin qaada fii kitaabat yi fawqal muraad min al xuyuri wa ujaddidul muraad kon fii liñ ci jubloo indi mooy li wax ni sama mbind mi wammatal na ma kawe sama xéemam téef àll moom sàkku kon nañ xam ne euh, li ñuy sàkku lépp buñ ko dëxalee ci biir xasida yi ñu ñoddil lu gën a kawe li ñu doon sàkku ci lu wér jërëjëf euh, Imam Aline Gueye jërëjëf tamit Serigne Daouda Pouye ci hadis yu am solo yu nga xam ne moom la ñu andil mu di ñu fàttali rek ba tey Euh, wàllug euh, zikr ak euh, li nga xam ne si moom moo ci aju lépp ak li ci nekk ci ay yiw imaam indi na ci léegi ne mën na laa daqal lépp loo xam ne si loo ragal la mhm. waaye mën na laa ñoddil lépp loo xam ne si aw yiw la woo soxla fii ci àdduna mhm. waaye lam lay indi nag alaxira moom kenn mënu koo xayma suñu borom rek moo ko mën a xam mel mhm. ne kon loolu moom mooy zikr ak ni nga xam ne it noonu la bare ay façon nga xam ne lu ci nekk rek boo ko jëlee te sax ca jàpp ca te mën na laa yóbbu fa nga bëgg su ko defee kon nu daal di ànd ak waa régie dugg si ñetteelu bunt bi muy buntub arminaat ma ngoog euh, ngeen seen émission wu Al Iftaar seen télévision Al Mouridiyyah buntub arminaat bi kon tey euh, dañ ci am ñetti xew-xew rek yoo xam ne moom lañ ci indi bi ci njëkk moom mooy euh, am na yàlla juñ doon wax allaat ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi muy woote ak euh, foofu ci makka euh, yéefari màkka yi amoon nañ ay yàlla yu bëree bëree bëri waaye am na ci jàkk yàlla bu mag a mag. Ah. xërëm bu ñu doon wooyee waaw <laughs> <laughs> waaw seen xërëm. seen yàlla ñoom. <laughs> waaw yàlla waaw mu ngoog mu ngoog waaw kay ni ma ko waxee jubul waaw su ma ne am na yàlla yàlla bu ñu doon wooyee allah day day day niru leneen waaye seenu xërëm la woon boo xam ne ñoom ñoo ko daan wooyee noonu allaat ci tey jii nag bisub tey jii maanaam ñaar fan ak ñett ci weeru koor eh, ci atum juróom-ñeenteel mi ginnaaw gàddaay gi ci la ko daal di woon nag toj daaneel ko danaa ci dellu siwaat ci xew-xew boobu naka noonu tamit eh, ñaar fan ak ñett ci weeru koor ci fanweeri at gin ak benn ginnaaw gàddaay gi eh, ci bis boobu kon ci lañ jullit ñi amee woon ndam Euh, ci kaw ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax euh, saasi sassanit yi euh, ci ginnaaw bi nga xamee ne kon rey nañu seen empereur yu mujj yi bokk na ci rek Yasgar ibnu Shariya ci lañu ko reyee woon bokk na ci ñi nga xam si ci lañu ñu ko reyee woon victoire boobu nag moom moo daal di jeex rek wala moo daal daaneel empire boobu wala dynastie boobu di sassanit te nekkoon ci Perse Euh, ba tey ci bis bii di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor ci atum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent 254 ginnaaw gàddaay gi euh, ci la kon euh, tulu nit daal di woon gane àdduna foofee ca euh, Égypte ak ca Syrie ci la ko daal di kon sose foofee ca Égypte ak ci Syrie ki ko sosoon nag mooy Ahmad ibnu Toulon ci atum 254 ginnaaw gàddaay gi ñaar fukki fan ñett la woon ci weeru ci weeru koor ba tey ñaar fukki fan ñett ci weeru koor ci la borom xam-xam bi di euh, Abu al-Hasan an-Nadawi euh, ci la euh, génnoon àdduna moom nag mu nekkoon jullit waaye nekkoon borom xam-xam bu mag boo xam ne Inde la fekkoon mbaax. bindoo nit lu bare bare bare lu jëm ci wàllug euh, diine ak loo xam ne si dafay yokk euh, nit ñi seen xam-xam gu jëm ci wàllu wàllug lislaam ak alquranul karim moom kon ci bés bi euh, ci la ci la génnoon àdduna ma dellu siwaat kon ci premier point bi nga xam ne moom laa joxe woon muy àllaat nga xam ne kon benn la ci Eh, xërëm wala ci yàlla yi wala xërëm yi yi nga xam ne si yéefar yi defoon nañ ko foofu ci biir eh, kaaba gi ñu wax ne kon eh, daf laan daf daf daf daan daf daan dafa nekkoon une dèse de fécondité maanaam jigéen ñi nga xam ne dañ daan am léeg-léeg jafe-jafe ngir am doom ak yu demee noonu daan na ñëw ci moom di ko ñaan si ngir suñu borom yombalal leen loolu ci lool nag laata lislaam la ñu wax ne tamit Euh, si bokkoon bokkoon na ci seen xërëm yoo xam ne si xërëm yu gënoon a fonk la dugaloon ko ci biir kaaba gi foofu la ñu ko euh, dencoon ñu wax ne laat moomu amoon na euh, yeneen xërëm yu fa nekkoon lu mel ne manaat lu mel ne uzza ñoom ñëpp tamit nag ay xërëm lañ yoo xam ne si yéefar yi dañu leen fonkoon lool ba dencoon leen fi nga xam ne mooy bërëb bi ñu gën a fonk mooy biir kaaba gi daan leen jaamu si ak daan leen sottil ay deret ak daan leen defal ay sarax euh, lu ci nekk rek daan nañ leen ko euh, defal euh, ñu wax ne tamit ñetti yàlla yooyu wala ñetti xërëm yooyu suñu borom tudd na leen ci alxuraan ci saar wii di l'étoile muy naj mi soo demee di nga di nga di nga leen di nga leen ci fekk di tamit ay ay ay ay ay ay ay yàlla joo xam ne si wala xërëm boo xam ne si dañoo jàppoon ñoom ne jigéen la maanaam jigéen la woon ndax seen xërëm yi noonu la ñu ko daan def daan wax naan jigéen bii góor la bii jigéen la bii mooy borom doole ji bii mooy mooy borom lee bii mooy yor ngelaw li bii mooy yor lii bii mooy yor mooy taw bi ñu wax na tamit euh, amoon na beneen yàlla wala beneen xërëm bu tuddoon xubbaal moom tamit ci euh, xërëm yi nga xam ne si ñoom ñoo gënoon gënoon a mag la bokk waaye lu ci mën di am daal euh, allaat moom bokkoon na ci yàlla yi gën a mag te it nag ba ñu amalee fatxo Makka euh, ci lañu ko yonent bi saa salaam daal di euh, ànd ak Seydina ñu dugg ci biir Kaaba gi ci la ñu toje mboolem euh, mboolem yàlla yi nga xam ne si ñoom ñoo nekkoon ci ci biir ci biir Kaaba gi yaakaar naa foofu imam da nga ci dolli dara rek ci wàllu fatxo Makka gi ci boppam ni mu amee ak it bi ñuy ñëw Kaaba gi ni nu ko fekkoon rawatina ci ñi nga xam ne ñoo ko doon gardeek Euh, yitte jiñ ci defoon waaye yàlla yi nga xam ne si moom lañ defoon ci biir nga xam ne am wax nañ ne mat na ak lu topp trois cent et quelques yàlla yoo xam ne si ñu ngi woon ci biir euh, ci biir kaaba gi waaye keroog nag lañ ne jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa mooy bi nga waxee jaa al xaq wa zahaqa al baatilu inna nga xam ne moom ba dëgg dikki rek mhm. neen joge fa te xam ne neen moom fu mu ak lu mu a sori sori mhm. suuf la jëm mhm. waaye euh, muy xërëm yooyu nga xam ne ñoom dañ koo sampoon foofa mhm. nga xam ne li mu mënta li mu mënta dégg mooy yàlla yoo xam ne laa mu mënta dégg ay <laughs> yàlla yoo xam ah, la ko daan wooyee ma <laughs> daal ay doj ñu doon jaamu daal <laughs> ah. wala ay xërëm yoo xam ne ñoo ko sampoon ah. waaw seen yàlla lañ euh, màbb ko màbb ko waaye ci loolu uh-huh. boo xoolee ci téere siira li nga xam ne dina euh, bégloo julli ñëpp loolu fatxu màkka la kon fatxu màkka mm. moom julli ñëpp ci bég ndax yeneen def sa sam bi nekkee màkka mm. bëgg faa samp diine mm. ñu ne ko ko sampe ba ci ndigal la boromam ma dem Madina mm-hmm. waaye xoolal ba may dikkaat ñu mm-hmm. yëkkatiwul ngànnaay ah, te ñëwaat na jël makka. Mm-hmm. dindi fa xërëm ya fa nekkoon. Mm-hmm. waaye xoola bi nga xamante ni yeneen sax mi ngi dugg si waat makka. waaw ñu wax ni euh, ki nga xam ni mooy Abu Sufyaan mm-hmm. ak soxna Hind soxnaam. ñoom fële leen fekk. ñu nekk yéen ñi kër di séentu Rasulaay mu ñëw. nga xam ne Abu Sufyaan boobu duggagul ci boobu duggagul ci lislaam ci fata makka boobee. lañ ko terale dugg ci lislaam waaye ak ni mu amee tur ci lislaam après. waaw ah, ak ni mu yéexee dugg. waaw hmm. léegi nag loolu moom lislaam moom li mu xam. Hmm. mooy saa boo ci duggee. Hmm. dëggalal. Ah. kon ku ci am téeméeri at dëggalul nga dugg ci te dëggal rek. wallaahi da nga koy raw ma waaw da nga koy dabal nga raw. dëgg la waaye moom Abu Sufyaan moo ne. bii ko suñu borom naree dimbali ci loolu ba mu nekkee këram. moom soxnaam Hind ñuy seen durus la ay ak mbooloo mi ñu àndal di ñëw. Hind di wax ci. yonent bi sallallahu alayhi wasallam doole yi mu am ak ba nu ko ci màkk mhm. Abu daal loolu yéeme na mhm. waaye li ma gën a yéem mooy ni muy nu ngoo xol gën a yéem xam boobu dugg seegul <laughs> waaye boobu moom lislaam ñu mën a ko doole ji mu am bay nangu si dëkk bi mhm. yéeme na waaye ni muy nungoo xol yi moom ma gën a yéem oh. kon boobu xam nga xolam dugg na dugg na waaye moo tax it euh, ba mu dikkee jiite euh, Màkka. bañ dajeeg Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. ëpp leen doole. amuñu benn pexe. mu terale leen ni bañ dikkee di laaj ñoom lan la ci ñoom. mooy bañ leen dajale ni leen lan ngeen yaakaar ne tey moom laa leen di def. wax nga ko fekkee rek. Ah, ndax ñu naan ko ñu ne ko daal yow moom axoon karim. boobu axin karim. Ah. mbokk mu tedd nga. Ah. di doomi mbokk mu tedd. mu leen izhabu fa antum tulaqa oh, jóg leen dem gore ngeen kon loolu ñi nga xam ne rasulullah sallallahu mm-hmm. ba muy dugg si Màkka noonu mm-hmm. doole jooju lislaam amoon mm-hmm. nga xam dañ naan doole la moom na yàlla suñu borom moo ko ci rele waaye bañ a bàkku na ba ñu wax ni kaalaam sax ko wàcce ba mu ay bëtam ngir bañ lenn lu ñu bàkku rek suñu yëg ko ci moom wala lenn luy nuru ni yëg na boppam suñu borom yëg ko ci moom kon loolu dañuy wane ne kon sant yàlla lañu war a defee ci idaa jaa nasrullaahi wal fath mm-hmm. wa ra'aytan naasa yadxuluuna fi diinillaahi afwaaja mm-hmm. fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba kon loolu war a euh, sant yàlla suñu dëgg la war koo jéggulu mhm. war a delluwaat ci moom waaye mhm. ndam yooyu nga xam mooy ndamu ndam yi Fatu Makka yooyee mhm, la ñuy ñaan suñu borom waaw dellusu ko ci Cheikh Maodo Mountakha wallaahi wallaahi ndeysaan wallaahi yemul ci réew islam amaat beneen fatxu boo xam ne lépp ci loxoom lay tey dëgg la ci lu wér te mu ngi ci yoon wa Mbàkke ñu ñaanal ko rek suñu borom mu gën a guddal fanam waaye mu gën ko defal ak wér Euh, su ko defee kon dañuy daal di jàll ci yi nga xam ne euh, imaam yi wares na ko wattandiku diggante tey ak suba tey nag di ñaar fukki fan ak ñett suba di ñaar fukki fan ak ñeent mu tollook dimanche tey suba di altine lan lañ ci war a wattandiku ak lan moo ciy digle ah, yi. kon jaawaloo bis ah. déedéet jaawaloo bis ah, <laughs> tey moom dimanche kon bu fekkee ne tey di bisu ah. ñaar fan ak ñett. kon li mu ñaar fukki ak ñetti yi. Hmm. fattul hmm. su dee bisu dibéer hmm. liñ ci wattandiku mooy tàggoo. ak watu mhm. suba incha allah di bisub altine di dëppoog ñaar fukki fan ak ñeent mhm. kon li mu ñaar fukk ak ñeent yi mhm. moo fat d'accord kon moo tax ba mboolem li ñu wattandiku ci bis bu fat dañ koy wattandiku suba moo xam muy tàmbali ci dara wala yëggale ko ci fas ci ab sëy ak yëggale ko ci tukki daloo watu sanc ak dugg néeg góor yooyu kon dañ koy waxtaanee ko ci bis bu fàtt. ci muy suba waaw incha allah. d' accord mu ngoog euh, muy kon yi ñuy waxtaanee ko diggante tey ak suba fàttali ñu yit waxtu yu julli ci Touba ak li ko fekkente ne tey la mhm. nga xam ni moom mooy waxtu bi waxtu jàpp bi. comme mhm. la ñuy jiital. kon 5 heures 17. ci fajar gi ñu dëgmal. waaw waaw incha allah 5 heures 17. Mhm. mooy waxtu yi nga xam ne mooy waxtu jàpp. mooy waxtu bi nga xam ne ci leen ñuy bàyyi lekk ak naan ak lépp lu yàq koor. waaye itam cinq heures vingt cinq kon juróomi waxtu ci fajar bu tegeelee ñaar fukk minutes ak juróom mooy waxtu bi ñuy salaatu kon ci la nodd fajar su fekkente ni itam tisbaar la treize heures trente mooy benn waxtu bu tegeelee fanweeri minute ci la ñuy julli tisbaar seize heures trente mooy ñeenti waxtu bu tegeelee fanweeri minute ci la ñuy julli takkusaan su fekkee fekkente ni tam waxtu timis la ma waxtu dog benn la ah. muy dix-neuf heures vingt-huit mhm. juróom-ñaari waxtu bu tegalee ñaar fukk minutes ak juróom-ñett su dee waxtu gee day tolloog vingt heures trente-neuf mhm. muy juróom-ñetti waxtu bu tegalee fanweeri minutes ak juróom-ñeent. Mhm. kon loolu mooy li aju ci mhm. waxtu julli yi ak waxtu jàpp waxtu dog yi. d'accord waxtu julli yi waxtu jàpp yi ak waxtu dog waaye nag Touba ak li ko wër li nga xam noonu la ko imaam. ji euh, Touba ak li ko ki defal bi di sëñ Fallou Mbacké moom ci. Euh, sëñ Abdou Khadre mhm. leeral na ci ni koo xamante ni. danga ko koo féetee vingt sept kilomètres. ci sowu. da ngay dolli benn minute. da ngay dolli saa boo dolli saa boo saa boo ko soree vingt d' accord boo amaatee mm-hmm. benn vingt ne penk bi itam. Mm-hmm. Ah, da ngay wàññi. bu penk bi ngay wàññi bu dee sow da ngay yokk. da ngay d' accord ko ndax ku nekk euh, Madina Mbooba. maa mm-hmm. xamul fan la ma Madina Mbooba nekkati euh, doon ma laaj naan ma ndax ñun dañuy yokk wala dañuy wàññi waaye yaakaar naa daf ma ne ci bët Saalum Touba la nekk waaw ah, ah. bu dee bu dee penku moom xam danaa xam bu dee soow danaa xam waaye. waaw li am solo la mooy loolu. Mm. ku féete Touba penku. penku da ngay mm. wàññi vingt sept kilomètres yu nekk nga wàññi mm. benn fekkente ni da nga ko féete soow vingt sept kilomètres yu nekk nga dolli benn minute. benn minute soo ko féetee gànnaar Saalum. Euh, cent kilomètres. ah cent kilomètres bu dee gànnaar ak Saalum. Ah, gànnaar ak Saalum. waaw kon moom mi ngi ci biir. par cent kilomètres. kon kon moom mi ngi ci biir. kon moom heure Touba lay dogee rek. Mm. Mm-hmm. su ko defee kon nu daal ànd ak waa régie ñu seetaan benn élément bu message de sensibilisation bu euh, ñu gën a euh, soññ rek ci wàllu euh, koor gi ak nu ci war a farloo bu baax a baax a baax dellu siwaat ci plateau bi indil leen li nga xam ne moom mooy kii bi nu mu tuddati naafile kon ñu daal régie di ñëw. yàlla moo gën a màgg ni ko sunu borom waxee ne wala zikrullahi akbaru rawatina alxuraanu karim gi nga xam ne dañuy sib sax ku xëy bisub lëmm te ubbiwoo ko jàng ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni dee leen jàng alxuraan ndax ëllëg bis penc dafay ràmm ñi ko daan jàng loolu moo taxoon cheikhul xadim digal ñu ne adim tilaawatan lidal kitaabi walaw thalathatan min al azabi saxalal di jàng téere bi donte ñetti isib la bis bu ne dellu soññewaat wax ne kullu muridin bi yalwuudu fal yu yudim tilaawatan li xayri zikrin xat rusim bépp taalibe bu aju ci man nay saxal di jàng gën gi téere bi ñu bind lii lépp nag bokkul ak soññee ràññeeku yi nga xam ni daanaka ko jagleel bu weeru koor ñëwee di weer bi ko sunu borom wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam chehru ramadan alladi unzila fihi alquran loolu moo waral kem na mu daan yokkee liggéey ña mu daan tarbiye ci weeru koor noonu la daan yokkee liggéey ñi mu daan liggéeyloo ci alquran ni ko cheikh mohamadul bachir leerale ci téeréem ba minanul baaqil qadim bokk na ci ay soññeem mës naa bind chehru ramadan bind alquran wàññu la araf yi chehru ramadan di juróom-ñetti araf alquran di juróom-ñaar mu teg ci ne képp kuy jàng alxuraan ci chehru ramadan sunu borom dina la ubbil sa juróom-ñetti bunti àjjana tëjal la sa juróom-ñaari bunti sawar sëriñ bi wax na ci nasiham ba ne jàng alquran kem sa kattan ci guddi yi ak bëccëgi weeru koor yiw wu rëy nekk na ci te képp ku bëgg jege yàlla sunu borom na jàng alxuraan te bañ koo fàtte ni ko sëriñ bi fàttale ci masaalikul jinaan fa man araadal xor qurba min mawlaahu fal yaqra'il qur'aana laayan yansaa'u jërëjëf mu doonoon sëriñ Mansour Seck ñu koy sant bu baax a baax ci euh, lu am solo lu nga xam indi na ko muy njariñul jàng alxuraan rawatina ci biir weeru koor euh, su ko defee kon euh, ñu indi leen rek naafile gu tey gi laata ñu ñëw nag ak sunu gan gi di sëriñ Daouda Pouy ci xasida ak bi guddik ñaar fukkeel gi ak ñeent sëriñ bi dafa wax ne ci xuratu ayni Euh, Serigne Chouaïb bu ci bu ngeen demee ci xetum téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent muy page 149 nee na ku ci julli ñeenti rakk ku ci julli euh, guddi ñaar fukki ku julli juróom-benn rakka nee na rakka bu ci nekk nga jàng ci Fatiha benn yoon ak qul huwallaahu te mooy lixlaas nga jàng ko ñetti yoon loolu rek la Fatiha lay doon benn yoon ak lixlaas ñetti yoon ci juróom-benn rakka yëpp loolu moo ciy am nee na soo ko defee euh, da nga tàbbi àjjana bi xëyri hisaab te kenn du la hisaab. waaw da nga tàbbi te kenn du la isaab loolu nag toujours ñu leeral ko fi tàbbi àjjana te deesu la isaab mooy ni ko imam Ahmed Touré di waxee euh, nee na mooy nga jaar salon d'honneur maanaam yow daal say bagage kenn du ko xool kenn du ko luñ butu kenn du ne téye leen ko euh, dafa am lu ko war a laaj kenn du ne dafa yoreel kii àq kenn du ne la ma xool sa passeport kenn du ne la ma xool sa visa kenn du ne la ma xool sa carte d'identité kenn du ne la lenn yow daal da ngay romb rek jàll ñu escorté la ñu escorté la nga romb dem sa yoon loolu moom mooy bi xayri hisaab Euh, ni ko imaam Ahmad Touré di leerale kon loolu euh, moom poñ boobu képp képp la ci indi waaye dafa dafa ëmb lu bëree bëri bëri dafa ëmb lépp sax daanaka mën naa ne ndax kenn ku nekk luñ la man di dikk ci yeneen julli daanaka lii rek nga bëgg mooy dugg àjjana te say mbir kenn ko xool waaw boo ko amee rek am nga lépp <laughs> waaw moom loolu la sëriñ bi indi tey ci guddik ñaar fukkeel gi ak ñeent muy kon juróom-benn rakkaa nga ci war a julli rakkaa bu ñu nga jàng ci fatiha benn yoon euh, ak lixlaas muy xul huwallaahu ahad ñetti yoon ci juróom-benn rakkaay yëpp noon nga ciy def te nga boole ko nag ak teewlu euh, te it nag ñuy wax ni maanaam du caayante ne naafile gi moom rek ngay def daal di daal di tëdd bu la neexee mën nga cee dolli yeneen naafile yoo xam ne da koy jiital soog cee teg lii wala nga boo jiitalee naafile bi nga xam ne mooy sunu buñ fedd waaw kay mooy sunu mooy fukki rakkaay yi waaw waaw kay mu nga plus nga dolli ci sefaak witar léegi nag balaa nga julli safaak witr nga julli sa ñaare sa sa rakkaay yi nii nga xam ne moom la suñu son bu joxe soo paree nag nga indi sa safaak witr ah, daal di tëj bu la neexee tëdd waaw mm-hmm. ah, kay ma soo neexee nag jugaat guddi gi <laughs> euh, waaye jugaat guddi gi jàng alxuraan ak yi dama noonu bu fekkee da ngaa nar jugaat ci guddi gi nag julliwaat imaam doon nga ko wax keroog nee nga lay gën mooy nga bañ a jullee goon safaak witr ah. Ah. bàyyi ba def sa naafila yëpp ba pare lenn la pare nga hmm. tëdd képp la dese daanaka nga soog a jul nag sa safa wétër nga xam ne mooy tëj nga soog a dem tëddi hmm. ok ma ngoog loolu leeral yu ci am solo la ndax damaa gisoon koo xam ne si suñu jullee naafila yi day julli naafila yi ba pare julli safa hmm. waaye du julli wétër da koy denc bu demee nag ba def ay naafilaam yëpp ba pare soog a julli nag wétër tëj doog a tëdd diggante wétër ak safa moom kenn du ko xajjale dëgg la wax fa sax dañu koo sib mhm, mhm. moo tax waruñu koo xaajale waruñu koo xaajale mu ngi ko lu am solo la jërëjëf imam su ko defee waa régie la ñuy daal di seeti seetiwaat rek ngir mën a dugg ci xasida bés bi ak sunu gan gii di Serigne Daouda Pouye mi nga seen télévision Al Mouridiyyah ngeen di topp seen émission wu Al Iftar moo tegal juróom-benn minute sëñ Daouda gan xasida wala yan abiyat nga ñu bëgg a laabire. waaw sëriñ bi ci xasida Faazal la si nga xam ne mm-hmm. maanaam suñu borom da ko bégale mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo siyaar si woon sëriñ bi. Mm-hmm. ci weeru kooram ci weeru kooru atum. 1331. mu wax ne bismillahi rahmaani tabaraka wa taala zuwaara naadimi hadihi wa xayruhu min al muminina wal muminat maan fi chehri ramadani ami alsachin nee na sëriñ bi maanaam suñu borom dafa bëggale xasida gi ñi nga xam ne ñoo ñëwoon siyaar si sëriñ bi ci weeru kooru atum mille maanaam mille trois cent trente et nga xam ne dañoo ñëwoon siyaar si sëriñ bi maanaam ñoom la suñu borom bégalee xasida gi suñu borom jox sëriñ bi ndigalal maanaam mbégte moomu na ko jottali gaa yi nañ bi mu commencé mu wax ne faaza alladina xaafadoo ala siyaam chahrin bihi uxliqa baabun lil iyaam nee na ñi nga xam ne dañoo woor weeru koor sàmm anteek woor weeru koor texe nañu nee na ndax weer la woo xamante ni mboolem bunti ay bi dañ koy tëj mun a yaraw na afdala futurin fil xubuur wa fil xiyaami minal muxnil karim nee na ñooñu dinañ am ngeen ku ndogu ci biir bàmmeel ak ci bés penc maanaam ndogul loo xamante ni dafay bàyyi ko ci yàlla may aji doylu suñu borom may aji màgg shahida xaaliqul wara li saaimin fi ramadana biridahul qaimin nee na suñu borom seereel na ñi nga xam ne dañuy woor weer wi te sax mu anteeg nañ ko digle mhm. di taxaw guddi yi di naafila nee na suñu borom seereel na leen ngërëmam mhm. te maanaam ngërëmal yàlla moo gën a màgg ci li ab julit di sàkku moo tax mu ne wa ridwa wa ridwanullahi wa ridwanum min allahi akbar wa ridwanum min allahi akbar mu wax ne hibaatuhum inda allahi waafira naalul mana fii darajatil axira nee na ñooñee seeni may ci suñu borom day bari lool lépp lu ñu yaakaar dañ koy am ak darajay alaxira nee na rudda li xayrihim adabu naar bi xayri dirhamin wala dinaar suñ borom jën jëñal na leen mbëgalum sawara lu dul ñu koy jënde xaalis wala dinaar rafaahum bi ramadana rafiu nafaahum bi salawaati bi salawaati naafiu nee na suñu borom yëkkatee na leen ci barke bu war weeru koor waaye suñu borom jëriñe na leen ci julli yi ñu doon julli ci biir weeru koor maddalahum mu naan nu foosil ba mi na mu naan nu foosil baax yi zul aradina sabin wati baax nee na suñu borom sottil na leen lépp loo xam ne bakkante ko yaakaar suñu borom may aji des ma nga xam ne mooy borom juróom-ñaari asamaan di borom juróom-ñaari suuf sottil na leen lépp loo xam ne bakkante ko yaakaar rek jox na leen ko nee na diyaafatul baax yi la del jinaani tam ho ana asaw mi bimtinaani ñi nga xam ne dañ doon woor ëllëg yawmal xiyaam ngan gi nga xam ne suñu borom dina leen ko ganale ci biir ci biir aljana da leen di fàttaloo ci coonaab koor bi ñu doon am fii ci àdduna mu ne ajru alladi maa indahu laa yanfadu ajrun kabirun maa taraahu nafadu fayug suñu borom ma nga xam ne la la nekk fa moom du jeex ndax alxuraan moo ko wax maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaqin nee na fay la goo xam ne dafa màgg lool te deet ak maanaam ak jeex di ko gaar du jeex ndaafam siyaamu shahri fi daarayni yakfiihum al wa naarayni nee na njariñal woor weeru koor ci àdduna ak àllaaxira dina leen fegal gàcceeg àdduna ak àllaaxira abadtum allaha al karima al akrama bi xayri shahrin qad yaquudul karama nee na jaam ngeen yàlla mu tedd may gën a tedd ci ngeen gi weer nee na jaamu googee moo leen di wamatal mboolem luy teraanga teg ko ci seen loxo ila ila siwaakum tantahi niiraanu yowmal xiyaamati kazal xusraanu mm-hmm. nee na ngeen ci sawara mucc ngeen ci sawara mhm. ëllëg yowmal xiyaam bés penc tamit mucc ngeen ci ak perte mhm. yéen ñu doon woor weer wi malaktu mun nu foo sa fi nahari yan xoo li xëyrikum zawanti xër mhm. nee moomoon ngeen seen bakkan ci bëccëgu weeru koor daan woor moo tax nee na képp koo xam ne day gëdd ki nga xam ne nekkul ci yoon da leen di teggi ndax yéen ñiy woor weer wi di naafila guddi yi yéen yéen a ngi ci kaw yoon wi maanaam ku leen fi fekk day wax góorgóorlu moo tax moo tax waa abwaabu jannaati naim futihat li saimina wal jamiun fatahat mhm. nee na mboolem bunti aljanay naim mhm. ubbil nañ ko gaa yi woor waaye yeneen mboolem bunti aljana yëpp mhm. juróom-ñetti bunti yëpp ubbil nañ ko gaa yi taxawal foofu sëñ sëñ sëñ sëñ bi <laughs> euh, xasida gaa ngi nii yëkkati leen mu son bi tuuti rek ci foofu abwaabu jannaati naim futihat waa régi euh, foofu dafa neex loolu sëñ bi wallaahi ndeysaan euh, suñu mënee yëkkati tega tega tegaat kii bi rek yëkkati son bi ok lakum la dal futuuri neena lakum la dal futóori wa furxataani bi tuqaa nee na maanaam am ngeen ñaari mbégte mhm. men mbégte mi mooy fa ngeen di ndogoo mhm. meneen mbégte mi mooy fa di taseeg suñ borom waaye sëriñ bi nee na mhm. sa taxala moo na an na rabakum an na rabakum karim waana indahu ujuran la tarim nee na di ngeen xam ne seen borom mooy aji tedd am na fay goo xam ne du jeex mukk di leen di fay te du jeex moo tax mu ne chakartumullaha ala chahri siyaam sa tadxuluuna jannatan doona iyaam nee na sant ngeen yàlla ci woor weeru koor mm-hmm. waaye suñu borom dana leen tàbbal ci cant googu aljanna incha allah ah, waaw jërëjëf <laughs> jërëjëf suñu suñu jaaw dañu ngi lay santaat bu baax a baax a baax euh, ci xasida googu nga xam ne la indi euh, mu mel ne moom mooy euh, wane rek imaam sëriñ bi fi nga xam ne fi la tegoon fi la tegoon weeru koor ak it ni nga xam ne loolu lay dikk ci loolu la suñu borom dikk ñi nga xam ne si ñoom ñooy aji woor yi Euh, ci ay ngëneel yoo xam ne ëllëg danañu ko am ay ajjana yoo xam ne si ñoom rek ñoo koy dëkki ay bunt yoo xam ne si ñoom rek ñoo fay jaar bu ñu fa ba jaar ba pare dañuy tëj bunt ba te dootuñu ko tëj ba mukk mu mel ne kon sëriñ bi loolu lay dëgtal ñi nga xam ne si ñoom ñooy aji woorkat yi mu mel ne kon lii boo ko jàngee ba xam ko euh, te dégg ko euh, koor gi lu mu tàng-tàng ak lu mu métti métti métti di nga jaayanteeg moom di nga jànkoonteeg moom ndax xam da nga xam ne ëllëg bu suñu borom di fay bay fay ñii da nga hmm. hmm. ci bokk mu mel ni mu ko ubbee rek. Mhm. loolu day bokk ci li gën a yéeme. Mhm. ndax xasida gi moom lépp a yéeme. Ah, waaye lépp itam mbég la. Mhm. waaye li ma ne day bokk ci li ci gën a mooy sëriñ bi li nga xam ne moom la wax ci taddimaan ji. sëriñ Daaru Ndaw ñëw na ci. bi mu ne. bachara allahu tabaraka wa taala zuwaara naazimi haadihi alqasida wa gayrahum min almuminin ba taddimaan ji yegg. sëñ bi fi mu nekk mm-hmm. daal ni mm-hmm. suñu mm-hmm. dafa bégal ñi siyaar si woon ki bind way wi ak ñeneen ñu dul ñoom ci jullit ñi dafa bégal ki siyaara ñi siyaara si bi waaw ñi ko siyaar si woon waaw suñu borom dina bégal ci xasida gi ah, d'accord nga xam ne kon mm, bégal gi leen suñu di bégal moom la leen sëñ bi di jot li Ah. xaw loolu tey ku koy dégg ku nekk. Mhm. war naa mën a bàyyi xel bu baax a baax diggante sëriñ bi ak boroomam. waaw waaw xam nga mi ngi koy leeral. di wane ni. Mhm. bi bari gum bari woon. Mhm. maanaam communication am diggam ak boroom. ci ci nit wax ko dara mu ne taxaw laaj ko sama borom. Oh. wala nit ko dara mu ne taxawam laaj ko seen Jibril. Ah. nee dafa bari woon ba nga xam ne ñu nekk ak moom. ni ñu ko doon dundee ak ñi ko doon jege mujj ba mu mel ni. xanaa bu ñu génnee dañuy day ñoom jox leen loxo. Oh. ndax loolu teew bi mu teew ci ñoom. kon sëriñ bi diggam ak boromam. Mm-hmm. moo nekk foofu. Mm-hmm. mooy moom digganteem ak boromam daa amul aw dig. Mm-hmm. ndax ñu ne sëñ sëñ sëñ mot wax ni euh, ay mbind yoo xam moo ko sëriñ bi am na ko mas a toog moom di wax. nekk sëriñ bi de ginnaaw yàlla ak yonent bi bu jàllee. waaw bëgg wax. sëriñ bi ko taxawal. mu taxaw mu ne yàlla yeneen bu ñu jàllee nekkuma <laughs> moom ci boroom rek la nekk ci boroom mhm. la seey eh. kon diggam ak boroomam amul aw dig dëgg kon moo tax li muy bind di ko toxaloo ca àlli waja loolu mhm. li muy bind lii ni suñu borom moo bégal mhm. ñi ma siyaar si ak ñeneen ñu dul ñoom ci jullit ñi ci lii nga xam ne moom la indi fii. waaw ah, yegg baax na de parce que sinon dama yaakaar ne ña xas dégg. ah dañuy dañuy wax xayrahum. ah kay <laughs> kay. ak ah, ci way gëm yi. Ah, kon hmm. euh, muy bégal gii. bégal gi nag moom mooy li nga xam ne sëñ Daaru Ndaw indi na ko ci xasida gi. mu mel ni sëñ Daaru Puy bokk. waaw mu mel ni sëñ Daaru Puy kon indi na ko ba mu jeex. Hmm. te mbég mi nga xam ne moo ci nekk. Hmm. kon di ngay dégg ñuy wax mbég mi nga xam ne ñaari mbég la. waaw benn bi mooy. Mm. sooy dogu. waaw mooy suñu ki dee ndogu. Mm. day mel ni mbég moom moom. Mm. la laa wax ne kenn du ko nit li kenn. bu dee <laughs> kenn ko nit li kenn kenn ku ne moom waxtu ndogu ba jotee. <laughs> moom li ngay. jërul woote de jërul ci am mbég. waaw sekkeen yeeg njaboot yi. day mel ni <laughs> soo doon eh, natt. ñaata yoon lañuy ñuy xool seen montre ci waxtu woowu <laughs> document lañu saa su ñaan def na benn minute def na ñaari minute tubaab naan chronomètre waaw ba nga xam ni la bu jotee waaye bu jubee jot rek ni <laughs> ni yenn saa saa nee na eh. sama xeet wi duñ dem ci jàmm mukk fii ak ñi ngi teel a eh. te yéex a xëdd nga am ñoom moo tax dañ koy dañ koy yàqamti waaye mbig mi nga xam moo la am ci euh, bu ñu bu ñu dogu hmm. kon suñ mbig tuddoo ko fii hmm. lu bokk dëgg loolu mbig mi ñu am bu ñu dajee ak sunu borom. Hmm. waaye yemu ca. Hmm. buñ duggee seen biir bàmmeel. ndax bi waxee ne yaroona afdala futurin fil hmm. wa fil qiyaamati minal muqnil kabir kon mbég mi nga xam ne tey moom ngay am booy ndogu muy ak ndogu bu am solo. seen bi nee na ndogu. xam nga kañ lañ koy gis. waaw fil qubur la wax fa la ñuy fekke ndogal li gën a matale ci ndogal yi te demaguñu waaw mu da ci wa fil xiyaamati bu ñu dee ba àjjana dem gisaat beneen boo xam ne te lu mujj dàq lay doon waaw dégg nga moo tax ñu naan leen euh, kulu wacta wactarabu bi ma aslaftum fi ayaamin xaaliya ñu naan leen lekk leen te naan mm-hmm. la waral ñu leen di jox teraanga yooyu mm-hmm. noonu la ñuy euh, bu ñu jógee ci yi mm-hmm. xam nga bàmmeel ku ci am nangami at am ci am nangami junni at soo jógee mm. nee biir yi day xóot waaye nee da am ñu leen di kar mm. di leen jox lu ñuy xéwloo mm-hmm. waaye nee leen lii ñu leen jox na la ko waral mooy lan la ngeen doon xiibal seen bopp ci bëgg nekkee àdduna mm-hmm. muy koor gi nga xam ne moom lañ moom lañ doon war mm-hmm. kon tey euh, loolu bokk ci li nga xam ne euh, sëñ bi leeral na ko ci mbégte yi ñu am waaye itam li sëñ euh, daaw pour waxoon léegi ci suñu borom dafa seere gërëm gim gërëm way woori mm-hmm. te la mooy mu waxoon ni shahida xaaliqul wara li saaimin mm-hmm. fii ramadana bi ridaahul qaaimin kon ñi nga xam ne ñoom ñooy dundal weer koor di woor ba pare di taxaw yaama yàlla ci guddi yi mm-hmm. suñu borom moo seere gërëm lu leen gërëm te li ngeen wax keroog rek ci ngërëmal yàlla suñu borom xam nañ ne moom àjjana lu mu ngërëmal yàlla ko waaw ndax mm-hmm. eh, ki lay liggéeyal nga di ko liggéeyal ba mu wan la ne gërëm na la mm-hmm. sëñ mag bi la doon wut mm-hmm. boo liggéey man lam yakun anni yarda karim radiya anni yarim kon loolu mooy man ak ku mu mën a doon ku ma gërëmul ku mën a doon loolu si wane loolu amul solo ci moom ne li ko waral mooy lan fal karim aji tedd ji radiya gërëm na ma rida lay sérim gërëm loo xam du jeex ba kon sëriñ bi moom loolu doon wut mm-hmm. te li tax ñu war a jégg àjjana di sàkku ngërëm sëñ Ibrahima dafa xam le ne sëriñ mag bi mm-hmm. li ko tàggooloog sagum mm-hmm. mooy lool mooy suñu borom dafa wax ni wallaahu wa rasuluhu aqu an in kaanu muminin ko dafa wax joxaan daan gërëm loo yàlla ak gërëmloo yonentam bi moo gën a yaay ci yéen su dee ay jullit ngeen su dee ay gëm ngeen moo tax sëñ sëñ Ibrahima Mbacke sëñ Tuubaa moom ba ba borom xamalee loolu nee nag ci la tàggoog sa borom tàggoog sa borom <laughs> nee kenn mësatu ko gis ci benn mbedd muy dox mm-hmm. loo ko mën a wax la mu lay tontu mooy lastu amilu li siwa maa yurdi mhm. rabba samawati wa rabbal ardi du ma jégg mukk di mhm. jëm ci lenn lu dul luy maye ngërëmal suñu borom yi borom asamaan borom borom suuf moo tax ba mu ko ba mu ko amee mu wax man man la nekkoon am yeer daafal karim solo trop eh, jërëjëf it eh, Serigne Daouda xas di nga xam ne moom la ñu indil muy phase eh, ak li nga xam ne moom la ci Serigne bi di fàttali rek muy ngërëmal suñu borom li nga xam ne si woorkat yëpp ëllëg daañu ko dajee ak suñu borom mu fay leen te loolu ni ko imaam leerale tamit ci biir ci dog ci boppam lay tàmbalee maanaam fii yegg ba ci biir bàmmeel yi yegg nag ba ca euh, bés bu mag ba nga xam ne si mooy bésu taxawaay ba ak bu ñu duggee euh, kon suñ daaw xam naa yegg si nañ daanaka rek ci jeexitalu émission bi mu des kon euh, xikma bi nga xam ne si moom nga ñu war a laabiré laata ñuy laata tëj ban xikma nga ñu indil tey hmm. fas ñu ko yéene laabiré maanaam boo demee ci wasaaya yi laa tafaaloo shay'an bi ghayri izni fal iznu shartun fi xabooli sha'ni maanaam bu leen def dara ci lu dul ne da ngeen a am ndigalal jëf-jëf jaa ndax ndigal loolee charte lay doon ci nangu jëf jaa charte bi mooy nangam balaa moo am nangam dafa am oto bi balaa moo tàkk dafa am gasoil wala essence dëgg la ok léegi jëf ja balaa muy nangu mhm. ala kulli xaalin nga am diggal mhm. ci demal nga jëf jëf ja d'accord nee na boo ko defee rek insha mhm. allah jëf ja day nangu te day barkeel d'accord insha allah d'accord mu ngoog jërëjëf Imaam loo ci dolli ñu tëj <laughs> loolu moo indi noonu lañ ko bàyyi xel te war ko jëfe noonu ah. uh-huh. mooy xamal na ni uh-huh. euh, bu ñuy def dara ci lu ñu amul ndigal uh-huh. ndax am liñ ci am ndigal mooy tax ñu nangu suñuy jëf moo tax mu xam ne ni fa xaytu ma amarakam rabbi mhm. kon kenn ku nekk sa sëriñ bu la digalee mhm. fam tasil mhm. na nga jëfe ndigal ndax jëfe ndigal li ngay jëfe ndigal loolu moo lay may tasil li rabbi d'accord di nga yegg ni euh, yegg suñu moom moo gën a kawe ci yitt yi nga xam ni. wallaahi di la yitteel doomu aadama. dëgg la dëgg la dëgg la ah. jërëjëf kon euh, Serigne Daouda euh, Pouy moo nekkoon sunu ganuk tey ñu ngi koy sandaat bu baax a baax a baax di sant Serigne euh, Aline Gueye imam ak imam Ahmed Touré moom it nga xam ne tey moom it nekku fi waaye ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax Serigne Baara Seck foofee ca Touba Mbooba ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax Serigne Mor Gueye Arafan yi moom it ñu ngi koy nuy di ko ziar. ak euh, soxna Maguette Diop soxna Maguette Diop ci Touba guy Mbind madame Mbacké ñu ngi koy nuyu di ko ziar euh, ak euh, soxna Adjilo ci tuuba Guédé ak soxna Ami Collé Diop moom it ci Touba Guédé la nekk ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax ak soxna naka laati sëñ Jibi waaw Jibi Jibi Ndiaye moom mu ngi ci Saam hmm, ci Touba ak Serigne Badagay baay Badagay ñu ngi lay nuyu di la ci Touba sura ak sëñ Moustapha Diouf fii ci Touba moom tamit ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax sëñ Dame Faye moom it euh, fidèle téléspectateur bu Al Mouridiyyah ñu koy nuyu di ko ziar bu baax soppeeb sëñ Mouhamadou Lamine Diouf euh, sëriñ Baara Mbacké moom sëriñ euh, Mahmadan moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax ak sëriñ Jibril Sarr mu soxna May mu soxna mu soxna Astu Gaawaan ci Touba moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax soxna May Ñang soxna May Ñang quartier Hizbut Tarqiyyah ñu ngi lay nuyu di la ak sëriñ Alé Ndiaye ak Cheikh Anta Kayre ca Gaawaan ci Mbàkke Bawol ñu ngi lay nuyu di ziar baax Ibrahima Diouf soxna Ayda ak Serigne Talla Ngom ci police bu Njurbel ñu ngi lay nuyu di ziar Serigne Ibra Diop ci Mbàkke Njóobeen Cheikh Ndiaye ca Mbaaria fii ci Touba ak soxna nday Maguette Wade moom it ma nga janatu ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax soxna Ndeye Maguette euh, Serigne Khadim euh, Ndiaye ci marché Guédé soxna Fat Diop ci Touba Ndaam ñu ngi lay nuyu di ziar bu baax a baax Serigne Abdoulahat jenn wala jaane jaane soxna maam bu sa jaane tamit ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax sunu yaay jooju eh, ak eh, soxna may Diop soxna may tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar soxna Maguette Kebe ci Gédé ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax ak ma jeexale kon soxna Astu Ndiaye ci Dakar cité Damel la nekk koy nuyu di ko ziar bu baax soxna Astu Serigne Ibrahima mbaay ci Mbacké Bawol Serigne Ibrahima euh, Sakho moom tamit ci Rufisque Ndakaaru ak euh, soxna Kumba Ndiaye ci marché Ocas yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax baax di leen bàyyiwaat xel tey bàyyi xel nag euh, waa groupe soppey euh, Assabax ñu ngi leen di nuyu di leen ziar groupe 1 2 3 ba 4 yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu leen ziar bu baax ak ñi nekk ca boobu soxna Ngoone gi ñoom ak ñoom sëñ Moussa ak euh, ñoom sëñ Xaadim sëñ Ablahat yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu sëñ Mourtala Ñang yéen ñëpp ñu leen nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci seen beneen émission ñu ngi bu baax a baax sëñ Daouda di santaat it sëñ Aliou Guèye ak mboolem ñi nga xam ñoo nekk ci régie bi ngeen mën ñoo gis mën ñoo dégg di leen jox dig daje kon ëllëg ak jàmm seen beneen émission wasalaamualeykum wa rahmatullah Orange moo leen doon gunge ci seen émission Al Ifta